une une lettre bi daal euh, amna simplicité ak par rapport ak li nga xam si moom la nit ñi doon xalaat ci euh, déception la en quelque sorte euh, ndax du fekkee disparaître nga mettre dans l'embarras toute une nation ba tay nga jenn bind une lettre aussi banale kooku dama japp ne xeyna na considération li nga xam ne si moom moo di sa askan et je pense que tey jii euh, li xew contre exemple la donc euh, vraiment euh, pour qu'à l'avenir mu mu mu bañ a yu mel nii bañati ko dal jeunesse bi nga xam ne si ñoom aussi ñu ngi suivre exemple yi ñu war a xam ni tey yi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel loolu la amul lu ma ci wax jërëjëf. léegi xoolal dina génn ci kanam tuuti. internet li mu def. yaakaar naa ni c'est trop léger du fekkee da nga toog ba mu yàgg nga dem ñi la indi woon wala ñi la couvrir woon wala ñi nga xam si ñoom ñoo am yaakaar ci yow xamunu ci loo nekk xamunu foo dugg xamunu foo jënn ba mu indi tey ji ñëpp doon ñaaw njort sax ni xëy na danga am ay tolof tolof wala xëy na am na ñoo xam ne taxaw nañu pour gàllankoor li nga xam si moom moonu sa étude kon tey bu état bi investiroo autorité yi parents yi kilifa yi ñëpp jóg pour fexe xam ci jaari moom ci li mu ne yaakaar naa ne tey waroon na nekk loo xamante ni xëy na lu nu mën a dégg la. waa ti wax naka ci euh, mbir mi nga xamante ni jamono yëpp gis na ne ci média yi euh, moo lëmbe réew mi muy jëm ci xale boobu nga xam ni moom la ñuy wax jaari sow. waaw Diary Sow nag euh, man dama jàpp ni tey jii war na nekk un exemple pour la jeunesse sénégalaise ndax jàpp naa ne tey ba état Sénégal détecté ci moom ay talent ñu gis xarañteem état bi gis itam li nga xam ne si moom moo di concours yi nga xam ne admis na ko admise fii au Sénégal ba tey état Sénégal investir ci moom yóbbu ko bitim réew pour mu mën a continuer ay études am nekk exemple pour la jeunesse pour que ëllëg.

mais encore une fois en tant qu'autorité, euh, autorité édifier ses parents le monde entier nous étions tous à sa recherche elle est partie de ses propres de son propre gré mais encore il wax sentir. que donc euh, lui ici, ça va permettre aux autorités yi à sa recherche de faire des recherches recherche par rapport à la euh, disparition de Diarissao.

vraiment lu ñuy lu ñuy déplorer la encore peut-être que moom moo am ay raisons moom moo am ses propres raisons peut-être que moom dina ci gën a édifier dina ci gën a indi ay leeral comme ça ñi si ñi si ñi si doon def ay investigation ku ne xam fooy teg say tànk waaw di wax euh, encore une fois mënuma ci sori contenu lettre bi bon yaatu na liiruma ko commentaire yi laa lire ak li nga xamee ni wax nañ ko ci à partir de ces discussions avec le ministre bon di yemale foofu sama xalaat par rapport ak lettre bi nga xam ne jaari def na ko